dafa kaawoo. dafa kaawoo. man dee ci Sese woo. dafa kaawoo. man dee ci Sese woo. dafa kaawoo may. dee leen ci Sese woo. may dafa kaawoo. dee leen ci. par équipe 66 kilos Saliou Fati daw na nëbb sol Madi Dior wala Madi Dior muy xew Madi Dior kal na ko Saliou Fati daan na ko Dakar am na un. Saliou Fati wala lu xew Saliou Fati daan na Madi Dior 1-0 Saliou Fadi daan na Mady Dior wala lu xew Saliou Fadi may may jox mooy mooy Diop Palmarin. ndeysaan mi ngi noonu. ndeysaan. deuxième combat baa ngi noonu. ndeysaan. dox ci diggante Mbaye Diop Palmarin ndig Maama. Dakar ak Kaolack. Dakar ak ñoo war a daje tey. Mbaye Diop Palmarin ndig Maama 76 kilos. si 76 kilos bi fàttali leen ni Dakar. moo mëneekul. am na 1-0. fi mu toll ci ki nga xamante ni. mooy Kaolack. mooy Saliou. ndeysaan Saliou Fati. ndeysaan moom moo am ndam. ci ki nga xamante ni mooy maam Madi Thior. Madi Thior. 66 kilos. 66 kilos. baa ngi nii. diggante. Mbaye Diop Palmarin Mama ak Ndik Mama daw na song ko sajjante attention daje nañu dëkkante nañu sol lu xew attention lan moo xew attention mu ngay daw butal ma koy door tànk moom Mbaye Diop Mbaye Diop Mbaye Mama Mbaye Diop Palmarin Mama mu nekk kenn du ko fooyee ci ñoom ñaar kenn du ko fooyee parce que combat la boo xamante final par équipe ku gagné am 10 millions maa la ko wax ku gagné 10 millions ngay am. Ah, fukki million kenn du ko kafe noonu. maa la wax loolu. maa la ko wax. seen bakkan la ko waaye jar na ko. jar na ko fi mu toll nii. yaay la may Diop Palmarin ko jaxabal léegi. attention ndig ko doon jaxabal. Mbay Diop Mbay Diop. waay Mbay Diop Palmarin Mbay Diop Palmarin na ko mu def deux appuis jóg. Big Mama tuur na ko mu jóg def deux appuis. deux appuis attention Mbaye Diop Palmarin. ma ngi koy jéem a plaqué attention. ndeysaan ma ngi ko doon jéem a manuel mbokk Mbaye Diop Palmarin ndik maama Mbaye Diop Palmarin ndik maama mu nekk combat bu am solo ndeysaan ñaari xale yi seen combat yëpp ay métti day métti parce que fi mu toll man dañoo négocier lu ne ba mu des final final kenn du ko négocier kenn du saax saaxee man dañoo négocier lu ne ba mu des final laa ilaha fàq na ko fàq na ko ñoom ñëpp ay bëre par force la bëre la fii lay yam maa la ko wax fii lay yam léegi ñu ñibbi bu soobee yàlla eh, léegi léegi ñu ñibbi léegi ñu ñibbi maa la ko wax ndeysaan combat baa ngi noonu mi ngi noonu di profité di ci nuyu waa Thiès gépp di ñuy bàyyi di nuyu waa Medina Fall Kër Cheikh Yaaxi Kaw Kër Maam El Hadj Aïcha Beyta Ndig Maama ndeysaan di nuyu ñamme ñamme Allahu akbar daan na laa ilaaha Mbaye Diop Palmarin daan na ndig maama laa ilaaha illallah Mbaye Diop Palmarin daan na ndig maama Mbaye Diop Palmarin daan na ndig maama jël bu rëy Palmarin daan na ndig maama Mbaye Diop Palmarin daan na ndig maama deux heures ay leer na daan na ko jël bu rëy moom Mbaye Diop Palmarin deux heures ay leer na ndax final bi lay dellu Dakar am déet ah ndax final bi lay dellu Dakar am ah. déet fi mu toll nii mu ngi xeeñ mu ngi xeeñ deux zéro mu ngi xeeñ deux zéro mu ngi xeeñ dellu Dakar deux zéro mu ngi xeeñ dellu Dakar ndax day dem Dakar am déet mu ngi xeeñ dellu Dakar ndax da koy jëlaat moom doomu Amadou Diop Kati. doy na waar daal. ndeysaan mi ngi nii. li wax daal ñoo ngi fii ci Ndar. di leen teewal fii. Hmm. yéen waa Thiès gépp. ndeysaan wala waa Sénégal gépp sax laay wax. ndeysaan ay ca ngi noonu. daan na ko jël bu set bu amul benn merante. Dakar 2 Kaolack benn. Siiny bu Bargny war a daje nga xamante ni nii moom moo di arbitre soufflé na mbokk yi 23e édition drapeau chef de l'État mu ngi noonu. 86 kilos yi lañ toll ndeysaan. Dakar ñu fàttali ne am na ñaar. Uh-huh. ndeysaan Badara internet moo nekk Ndele. ndeysaan moo nekk moo nekk Kaolack seeni bu bari ñi. ndeysaan ndeysaan. dew na ndeysaan ndeysaan moom siini uh-huh. moo ngeen boo ngeen lu weex li mooy seeni bari ñi moom rek moo daanoogul ci compétition bi daanoogul attention ndeysaan Badara internet Badara jëm na ko war léegi internet dew na ko tibbu dajale na ko ko daan na ko la ilaha illallah oh daan na ko daan na ko jël bu rëy daan na ko daan na ko daan na ko jël bu rëy daan na ko da koo daan Badara internet da koo daan da koo daan da koo daan na joxe victoire da koo daan buñ bañee la na ko nañ ko jox victoire waaw daan na ko daan na ko daan na ko la ilaha illallah c'est la première défaite première défaite sit bi musuma ko gis yee dafa yéeme wula bariwul day na waar wula bariwul day na waar oh quel sit quel sit dafa rëy laa ilaaha illallah wuu doy na waar ah uh, 2-1 final baa ngi bëgg a xeeñ neex léegi mu neex léegi mu xeeñ neex léegi mu neex léegi mu neex léegi mu neex laa ilaaha illallah Dakar day assuré mu ne kii day Papa Ndiaye Papa Ngane sox sox. ah mu ngi noonu ak Sele Mele Papa Ngane sox sox. Sele Mele waaw. 100 kilos 100 kilos. combat ba day neexaat. sox sox Sele Mele. 100 kilos combat ba nar a neexaat. Papa sox sox Sele Mele. mi ngi noonu. eh combat la buy neex. la ilaha illallah. mukk. la ilaha ah waaw daan na ko waaw. dafa rafet oh. fit ba rëy na Ndeysaan vingt et un vingt troisième édition drapeau chef de l'État fii ci Ndar. Ndeysaan. Dakar di ko finalu digganteem ak Kaolack. ak Kaolack. fi ñu toll nii Dakar am ñaari ndam. ndeysaan Kaolack am benn am internet ndeysaan moo am ndam ci kaw Seyni Sembène 86 kilos Dakar moo am ndam Saliou Fati moo am ndam ci Madi Dior ci 76 kilos ndik ah, ah. mama arbitre su ngi noonu kon attention télé télé télé mele ak Papa Ngane sox sox Ngane sox sox na moytu ndeysaan na ko moytu télé mele Papa Ngane sox sox télé mele télé mele Papa Ngane sox sox ndeysaan ñoom ñaar est-ce que dajawun ci préliminaire yi. mais ñoo na ko moytu. na ko moytu. Papa Ngane da koo bëgg a waaxu da koo bëgg a waaxu. ay Sélémélé du ko nangu. dafa bëgg a dire Pandor yi à l'heure. loolu la demee. def 2-2. 2-2. Sélémélé bëgg koo jeexal. jël na ko attention jël na ko. attention daan na ko daan na ko. 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 Dodo, dodo, ah doy na waar doon na na penalty oh raté na penalty raté na penalty wata bala ko dóor raté na penalty jeex na non jeex na daan na ko dafay mu taxaw jeex la ilaha illallah jeex ah dodo, deux sox sox quel final quel final quel final final baa ngi bëgg a doog a neex ngi doog a neex maa la dugal gagné dimbali ak ki nga xamante ni nii ilaha illallah ah final baa ngi nii nag mu ngi doog a neex mu ngi doog don final de deux mu ngi doog a final laa ilaha illallah Dakar ak Kaolack rajaxe moo ñu wan ginnaaw ibu Ndiaye Obali moom la ñuy jàkkaar lool Dakar plus de cent ma nga koy daw Laye Dexe bañ koy bloqué Obali Laye Dexe Laye Dexe ma koy door tànk ci jàpp na ko jàpp na ko ku daan jël ndeysaan ku daan dem final baa ngi ku daan dem 2-2 lañ def Radiakhé ak Obali Obali mooy représenté Dakar plus de 100 Radiakhé Kaolack moo dëkk Kër Fodé di rakk ci ambulance numéro 1 mi ngi noonu. nuñu jappante ca kaw ndaysaan ma nga ca ma lah ngi koy oh, weñ waaye doole ja ndaysaan ëppali abrajaxe dakar am de, deux kawlak am deux ku daan dem dakar am de, deux kawlak am deux ku daan dem ku daan dem mi ngi noonu sol jàllaabi bu weex Balla la andal Balla la andal mais nag ñu ngi ci làmb ji ñun ña ñun combat bi nga ñu fi andi combat bi ñu fi andi ci di géew bi taxalikoo nañu dawaat na dawaat na fàq na wër na ndomba yaru ci suuf doole doole doxul jàmm amul jàmm Dakar jëlaat na ko Dakar jëlaat na ko ci kaw Kaolack Dakar jël na ko ci kaw Kaolack jëlaat na ko ci kaw Kaolack jëlaat na ko ci kaw Kaolack Dakar na final ba ci kaw Kaolack 22e édition 23e édition ko jël ak kan Amadou Kati Boy Kayre ak daaw 2022 Boy Kaïré ko jël wala Amadou Kati Diop ak Moustapha Gueye ko jëloon mi ngi noonu mbokk yi nañu jàngee ci lii nañu jàngee ci lii nañu jël équipe bi di ko équipe bi di ko jox ay entraîneur nañu jël équipe yi di ko jox ay nit ñu xam bëre nañu jël équipe yi di ko jox ñi xam lam loolu mooy lam drapeau chef de l'état ay entraîneur yu xam lam ba koy def drapeau ñu xam ay mbër cay dem drapeau chef na l'État ñu xam làmb koy yor. jeex na 23e édition ba jeex na 23e édition ba jeex na Ibou Ndiaye obaleem ko lëng buy dem gi noonu làmba gi noonu làmba gi noonu ndeysaan gi noonu Lamine Diop muñal Lamine Diop muñal l'État. Lamine Diop muñal ay ca salaamaaleykum mbokki internet salaamaaleykum mbokki téléspectateur bu Merveille Thiès TV gis ngeen ko nee naa leen fii leen lañ fi nga xamante ne drapeau chef de l'état 23e édition drapeau chef de l'état ñëwoon fi nga xamante ne Saint-Louis du Sénégal ah, ñu organisé ko woon moom itam di jaajëfal képp ko xamante ni nii yaa doon bàyyi xel ci Merveille TV nee naa la ñu àndoon ak ñi nga xamante ne nee naa équipe bu Merveille TV ku ci mel Baro moom itam toppoon ñu waaye itam drapeau chef de l'état bi nee naa leen nag nee naa leen li ñu indi woon moom moo di vingt-troisième édition Saint-Louis Sénégal ñoo ko fii nga xamante moo di stade Mawade Wade gis ngeen kon ni mu demee ki nga xamante ne moom moo jël di équipe bu Dakar kan la gagné ki nga xamante mooy équipe bu Kaolack waaye itam troisième place bi ki ko jël moom mooy équipe bu Fatick moom moo ko jël gagné ki nga xamante moom moo di plus de cent ne moom mooy Toubacouta moo jël plus de cent kilos bi euh, daal di képp koo xamante doon ñu bàyyi xel képp koo xamante doon topp fi nga xamante moo di Merveille Thiès TV ay ca noonu la doon demee saa su ne xëcc bu daggul dikk maam yendoo teeng waaye balaa boobu xam nga lu ma dëgg rax ca përëm cere ji bu ñu na te luñ ko mooñee faaw ñu dem va ñi nga xamante ñoom lañ àndaloon depuis Thiès ba Saint-Louis euh, ñëw si drapeau chef a kon sponsor leader bi nga xamante ne moo ñu gumbee fi nga xamante ne mooy drapeau chef de l'état muy au Kawsara ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di DJ Amzo l'international le Kylian Mbappé des animateurs maa nekkoon ci micro bi di jaajëfal bu baax di lay wax vise la ligne si tu rates la ligne tu tomberas sur les étoiles et nous serons tous des stars paix et joie dans nos cœurs paix et joie